maître Assane Dioma Ndiaye avocat mais defe naa tey euh, li may gën a wax ci turu ci sama wàllu xeex bi may xeex ci euh, yelef ak àqu doomu aadama di président de la ligue sénégalaise des droits humains tey ñu jàpp ne taxawaay bi ñuy laaj daal mooy nañu taxaw def introspection xoolaat li nga xam ne 2000 ba léegi moo fi am maanaam bu démocratie mais hégémonie des vainqueurs régime yi ci met Ablaye Wade ba tey Macky Sall ku ñëw da nga indi say nit keneen ku ci bokkul bokku ku nekk sa wet lu mu mun di def nga laxu ko koo àndalul lu mu def nga dal ci kawam te keneen koo xam ne àndul ak yow du yaakaar sax am post de responsabilité ci réew mi te loolu yëpp seet ngeen ci teg ngeen ci seen bët mm-hmm. même boo ñu la joxee responsabilité sax bu fekkee ci parti bi nga nekk bu la parti bi sanctionné dañ lay daaneel ci responsabilité étatique te xam nga ne loolu ay rëq-rëq yoo xam ne nit ñi dañ ci doon gëmm seen bët mhm. xale yi tey loo mën a teg ci financement mais dañ la naan mais maître man du ma déposé ndax bu ma demee du ma am mhm. ñi bokk ci parti yi mhm. APR la ñuy jox ñi am ku leen pistonné la ñuy jox ñi nga xam ne am nañ ku leen taxawu ci Sénégal man ci banlieue bi laa dëkk man Njaareem laa dëkk man Fatick laa dëkk aw ma ku ma jàppale. Mm-hmm. donc loolu yëpp il faut ñu nangu ko xoolaat. Mm-hmm. ba xam pathologie bi suñ feebar fi mu toll. Mm-hmm. léegi nag boo indee ay foofiyan di nëbb sa kanam ne duma ma xool jant bi danga naan ay mercenaires a ñëw Sénégal. danga naan xale ay terroristes lañ mais na ngi sant yàlla ba nga xam ne. nit bu demee ba egg ci li ñuy wax tiit instinct de conservation bi mooy ñëw lucidité mu ngi commencé ñëw. di rafetlu yenn yi yoo xam ne ouverture yu fi am. te mu méngóog ñun ni ñu jàpp ne. Mhm. buñ ko boolee ak question bi nga laaj. Mhm. fexe ba li am lu tax mu am. ñi am lu tax ñu egg fii doomu aadama yi faatu yan condition la ñu faatoo ñooñu seen xel mun a dal ñu mun a def seen dëy. Mhm. justice bu ci waree dugal loxoom ci kaw documentation bi nga xam ne ñoom dinañ ko ko jox. mu daal di ci dugal loxoom mais lépp nag de pour vengeance. de pour sanctionner nit. mais ñu ne conflit du ñàkk ci société mais bu amee mhm. nañ ci def jàngat ak taxawaay bi war mhm. pour mu doon leçon plus-value mhm. ci économie dañ naan plus-value luy yokku ci li nga amul woon loolu nag di nga ko am ci loolu bane nag di plus jamais cela maanaam ñëpp d'accord ne lii du fi amati Sénégal bu bees contrat social bu bees lañ soxla te yaakaar nañ ne dinañ ci jëm